يا خالد خرب سنا فخرنا بدل que Valida!

ma biir Cheikh Issa Dieng Sir لأنه عمل فقه شهاب فسيكون شهاب yàlla la yéen da ngay dégg nit sa diggante yàlla ci yëpp da ngay diggante sa borom ñi wax ne sellal mooy lépp say nekk comme ni ngay dégg say ñaaw wala boo demee ba tey si loolu ci jaamu ñëw bay nag sant loolu la ngay joxe loolu ak day dindi ci doomu aadama ak lay ñàkk sa bopp noo ko korom moo ndax ñu ne tey mooy bu bu la daan tiitaroo li lay gën a mën a tiitaroo moo ñu ne diw ne bàtt nga xam ne loolu mooy plaisir bi gën a nekk fàttali ko bopp fàttali rek fàttali waaye jëlee li ko ko nekk ndax li ko gën a nekk mooy bu seen kii ba kuy ñëw mu mën a si biir dàll surtout ci suuf toroxoon wala nekk waaye day def am yaakaar rek suñu baax rek am naa wasale yi ak am gisal bu baax mu xàll la def ak gisal bu baax tey bi yàlla ak askan ci mag waaye bii ñëw li yàlla toll la toll mu ne suñu baax li ko yàlla fayal noppi lay sax daal ci dina du jóg kon kanamu Cheikh lu la dégg lu xam ne moom mooy wax a se se siempre seex yu bees tàq tàq yoo xam ne bàyyi ko rek nga gis jafe-jafe jóge fa rek ñëw jafe-jafe diwlu leen seex diwlu leen seex moom li ñu yéege daal rek dëgg yàlla amul yoon ba yóbbu ñooñu nag ñoo jàpp ne ci am fekk ak góor ak jigéen ñi jàpp ci am foofu mooy tax a jóg sëñ Tuubaa wala yéen Ibrahima ab sëriñ du juuyoo mukk ak sunna si nekk sallallahu alayhi wa sallam waaye sëriñ ay partenaires ñu ngi ko topp nga xam ne tey lor fekk ci la ko fare wala ci naan xam gi muy xam jamono ak war a fekk mu ràqee incha allah am na ñoo xam ne ci tudd yàlla. ay doon laaj ak seen jiw la mu war ab war a dugg nee naa nag ki gën a ñàkk jox mooy ñëw ci seen place bi ba loo xam ne seen jiw dana yéeg seen jiw yu yéeg yow nga jéggi si sëriñ la muy yéeg ba loolu dina gis beneen sëriñ bi yéeg boo amoon jox bu ñu tegee seen place bi dañ leen sama sëriñ nga tegal waaye dana seen jiw yu yéeg bu ñu leen diw sànq mu laal béykat bi seen nga xam ne doo seet seen nit bopp yi leen neex daa dina tax sëñ Touba kenn du bot kenn di kaata keneen sëñ Touba booy gëm sëñ Touba da ngay gëm gëm sëñ gëm lépp sëñ Touba waaye amul gëm parti bi weddi weddi parti bi sëñ Touba sëñ Touba léppam ngay gëm booy booy gëm doo gëm ni bàyyi kon kale yoo mat ci loola ak gëla yóbbu ci melal suñu borom mooy ka lay ka lay dimbale mooy xam gi mu xam tawat bi ba mën ko yóbbu ci diggante ba borom ba fa mu jëm man faa yegg ba li muy yóotu it di ko sàkku jamono bu nekk mu mën kaa mu mën kaa jot mu gën a gaaw kon Sëriñ Tuubaa na ki ma roy mooy kii roy sunu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga dem naa ci benn jotaay bis ku ñëw ànd ak mbooloo mu bari biir ba noonu ñu tuddoo waaye ci gën a métti mooy jotaay bi dafa bari ay ñu ñu cobab ñuy xool feneen damay wax ne ne reetaan sax reetaan sax mooy suñu liggéey liggéey Sëñ Tuubaa reetaan ak kilifa bu ñëpp di xaar ci joxe bi sax doon solo nga naan reetaan reetaan moom ciy liggéeyee Sëñ ne yetti kullu yi ma seetantal doo dara reetaan bay xaar tam kullu nafsin sayi'atun mawt kullu alayha fan kullu shay'in halikun illa nga ne reetaan mooy suñu liggéey liggéey Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa moom muuñ mag ñi benn bis nekk sa seet bi ci ak ree ba kàddu jëm kaw te booba lu yéeme booba ci genn kees la nekk ree daal ba kàddu jëm kaw moom sëñ Tuubaa mag ñi am na ko fekk mu ne xalaat bi nga def li yéem na leen jaaxal na leen waaw mu ne nag li tax ma def ko waaye yëngu ci bay yëngu tubaab yi bay tax la ñu xëy yéene ko mu ndaw yóbbu ko fenn waaye ku ndaw koo kenn mu am ci weer man la ko yónnee nga xam ne weer wu jot day yónnee si tubaab yi ba ni si tubaab ñëwee njëkk si tubaab yi ñu ko xaree mooy mu toog ab diir ak lëm gisul leetar boobu ñëw ci waaj jóge ci waaj jóge ci tubaab seen tubaab yi ma sëpp ak jula te ko ci sama téere mu mel ni dërëm ma xool ko ci ëtt ba mu jeex ci suuf ma xam ne comme déggu la ah, ñu dundal seen tubaab yi بيضاء تكفيه شريك بعد اليوم هو ايه mooy nag ay partage yu sëñ kenn yaa ngi dund ci di ko jox alal ak di ko liggéey ab sëriñ loolu lay jëriñ sëñ Tuubaa dalaa ko del faj jittee sëñ taalibe bi moo war a faj jittee sëñ te nan la koy fajee bil basri wal hikma di ko jox sa alal ak di ko liggéey sëriñ Tuubaa dañoo bul ca yem nee na taalibe bi ñu war a nekk ci wetu sëñ bi mooy lépp lu sëñ bi bëgg na ko bëgg sëñ bi bëgg na ko bëgg kuy xaritu sëñ bi na ko def ci xaritu sëñ bi kuy mbokku sëñ bi na ko def ko waaye da nga gis taalibe boo xam day bëgg sëñ bi bañ la sëñ bëgg sëñ bi bañ soxla sëñ bëgg sëñ bi bañ doomi sëñ moo waral nga dig sa bàyyi laa yaakaar indi sa bàyyi la war fexeel ngay kii ko am fulla boo xam ne am fay la ko mu ko mu yoo xam ne ko sa bàyyi rek daal la xool sa samay cër mu mu ne ko nekkatu fi maa fi nekk loolu moo mënta defal xaaral ko gis baa nga dajee soxnaam gëmi rakkam gëm léppam waaye nit ki kër sëñ bi di jaxasee dafa ne bëri na kilifa yu tuddante ab nga koy da benn baay kii am dara kii amul dara nga ñëw ci moom na ko li nga am sa liggéeyu ndaye moom ne ñàkk a mel xanaa ngay nar di waaye yaa waroon a toog espace bu baay dem ca kee na koy alal bi ama tax amul dafa bew yëpp kii tegulu kii waaye du tekk dara jaxase yooyu nag nga xam ne naan tamit boo dogal ñu yóbbe mooy ñu suuf la julli te julli boobu amul teg saytaane yooyu